professeur Fatou Sow Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. yow euh, socio-anthropologue nga yaa jiite aussi institut du genre et de la famille euh, professeur euh, noo jàngatee taxawaay bi nga xam ne yenn ci sénégalais yi am nañ ko ci li nga xam ne moom la àdduna bi yëpp di dund muy coronavirus def ay jëy fu bari ci àdduna ajuma ji par exemple gis nañu ay mbooloo yu takku di jàmmarloo ak ay takk der ndax dañoo teg loxo ay imaam yoo xam ne jiite nañu julli ajuma bi donte sax. tere jugoon na eh, ci kilifay réew mi jëm ci wàllu woowu. waaw d'abord may wax ni eh, feebar bi eh, ñuy ñaan yàlla rek yàlla musal ci senegal ba li xew ci yeneen réew yi bañ fi bañ fi am. lu am la lu am la loolu jarul jarul werante waaye feebar bi foo di feebar boo xam niroowul ak yeneen yi parce que feebar bi daf la yóbbu ci yàlla dafa la yóbbu ci dee. Mm. sa xel day dem ci dee. te lépp loo xam sa xel day dem ci dee da ngay dellu ci sa borom. te bu boobaa yow nitu diine yi si ñoom ngay daw parce que bu ñu fàtte ne amoon nañ fi beneen boo xam ne nuroowuñu mooy VIH sida mhm. bi mu amee am na ñu ko weddi woon euh, mais réew yi ko weddi woon yu bare ñoom ñoo ci gën a loru euh, réew yi nga xam dañ koo teel a nangu teel a fagaru mhm. ñoom ñoo ci gën a mucc comme Sénégal mosul mosul bëri euh, parce que dañ ko dañ ko teel a mucc fexe ba centre de transfusion sanguine ñu ñu sécuriser ko nga xam dootuñu wàll nit ñi si deret mhm. mais en même temps tamit sëriñ si dañ ci dugg feu Abdoulatif Gueye dem wax ak kër diine yëpp ba kër diine yi nangu ni loolu am na mujj gi moo taxoon ñuy bàyyi euh, euh, imaam yi bu ñuy waxtu bu ñu julli euh, julli juróom yëpp ñuy fàttali nit ñi ci loolu donc yu mel noonu la sëriñ si dax am na dax Najuru def naa la tuddoon sëriñu ñaseen bi nga xam ne sax moom dafa mujjoon nekk relais mm-hmm. ndeysaan donc lii dafa di li tax li tax mu am particularité bokkul ak beneen feebar bi dafa daf lay delloo si sa xam nga ne da nga si dee nga jëm mm-hmm. mu delloo la sa borom léegi nag Sénégal ñoom delloo yàlla boobu am na ñoo xam ne li tax ñu dem aljuma bi nañ ko ni ñu koy jàngate ñun comme anthropologue. Mhm. ni ñu koy jàngate moo di euh, comme ni ñi seen ngëm-ngëm parce que feebar bi dafa apposé mu ngëm-ngëm ak ku nekk ni nga dégg ngëm-ngëm comme dañoo gëm pour ñoom jàkka ji sax daf leen war a musal ñu dem tuub dellu ci seen borom seen borom musal leen ñoom noonu lañ koy gisee mhm. wala ñu dem ci sëriñ ba mu leen mu musal leen yàlla dafa santaane nit ñi jàngi sàkku ji xam-xam mhm. te yàlla dafa santaane nit ñi faju kon bu fekkee ne wan nañ leen ni feebar bi di ci am importance mooy xam nañu nu muy wàllee mhm. te mbooloo mu bare dafa koy joxe te li ci musiba moo di feebar bi moom bu nit ki sa loxo taqee rek fépp foo laal ku ko laalaat da mujj yow tamit ànd ak feebar bi mhm. waxuñu rek saqat beeg la liy génn sa bakkan nag liy génn sa gémmiñ ak liy génne ci sa ci sa loxo boo taxañoo sax Mmh. laal feneen da nga koy wàllaate mmh. donc lu mel noonu moo tax ñu mën a xam ne li tax ñu bëgg jàkk yi nit ñi di fa momentanément kenn terewul ni dem jàkk mais fii ñu toll tey dafa jaadu l'islam ci boppam moo ko santaane parce que nit ñi génn nañ ci ay bari ay ay sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yu bare yoo xam ne tere woon na ni ñi di jóge si dëkk dëkk bu fekkee ni feebar dafa am fa mbar fa amee comme ni ñëw waaye léegi di am importance fii li ma gëm moo di ñi ko ñu bare respecté nañu ordre nguur gi. Mhm. bu ñu def ñun statistique dañuy xool nombre bi doo tëb rek ni benn wala ñaar bañ nañu rek nga mhm. jëb ni nit dañu bañ buñ ko seetee ñi ko nanguwul barewuñu tuuti lañu. Mhm. te c'est pas euh, grave yaakaar nañu bu ñu demaatee beneen aljum bu ñuy avancé ñoom tam daañu mujj dellu gannaaw. def li nit ñi def surtout bu fekkee tamit kër diine yi jàppale nañ leen ci parce que fii nit ñi ku nekk ndigal bi ngay déglu si fit suñu euh, ñun suñu tolloog suñu population la ñuy déglu parce que sëriñ bi lañ kon sëriñ bi tey moom mooy ki nga xam ne mën na dimbale bu baax askanam mën na dimbale Sénégal bu fekkee ni parce que moom tolloo na niveau boo xam ne xam na mën na ràññee kon moom moo ci war a jàppale bu baax politique publique yi pour ñu ñu xeex daan feebar bi. Mhm. Euh, ku xam euh, sénégalais ak ni ñuy dundee demalante beeg dikkalante bi jaxasoo bu bari bi euh, ndax yaakaar nga ni lii spécialiste yi santaane muy ay mesures yu nu wax a jël bokk na ci xëy na moytu jaxasoo beeg yooyu danañu mën a yegg si ci respecté ko ba ci sax confinement ku ne toog sa kër bañ jaxasoo kenn. waaw yaakaar naa ko bu ko situation bi laajee parce que gis nga nag li ñuy wunti wax yëpp kenn bëggul dee bis bu ñu demee ba ñu dana bari ñu ko respecté déjà sax nit ñi pour man ñi ngi commencé di ko respecté parce que boo gisee mba mbedd yeeg demalanti mi ngi bëgg di wàññeeku. Mm. gis naa ay ay xew yoo xam ne léegi ku nekk da ngay woote gis naa dëj yoo xam ne dañu wax ni jéggal nañ nit ñi. Mm. gis naa ko ci ngénte gis naa ko man ci sama entourage ñoo xam ne woote nañu daal wax dëgg yàlla jéggal nañ nit ñi nii ak nii lañ koy defee. Mm. kon am na ñu commencé di ko mën a di comprendre mais bu ñu waxee nit ñi dañuy lëlu lël boobu ñuy wax mais tàmm nañ lël xam nga bu ñuy xaraf dañuy lël xale bi. Mm-hmm. bu ñu dem ci bois sacré dañu lël dañuy lël bois sacré mooy le le message je le plus fort pourtant bois sacré nit ñi dañ fay lëlu pendant un mois du ñu gis kenn kon nit ñi war nañ mën lëlu mais lëlu bi du yéen ci seen biir parce que yéen ci seen biir amu leen ko wala ko fa am moom dañ koy jël ñu ñu isolé ko mooy li ñuy wax arrêté chaîne de transmission bi bu fekkee yéen amu leen ko su ngeen keneen ku jege sa biti bu duggul ci seen biir du leen ko du leen ko du bi dañu wax ni ñu wàññilante demalante yi nga xam ne groupe yi nga xam ne bokkuñu lu ñuy ànd lu ñuy ànd. Mm-hmm. am na sax ñuy dem parce que Chine nan la ko réglé moom région wu lëmm la lël foo xam ne cinquante six millions de personnes ñoo fa yeewoo mm-hmm. parce que ñoom un milliard et quelque lañu. Mm-hmm. mais ñooñu lëmm lañ jël ba dafa bariwaat ni kenn du dugg kenn du génn mi ngi waroon ñu xëy tuba ne Dakar bi tëj nañ ko. kenn du dugg kenn may leen ndam ci li mu li mu leen may kon ñun àggaguñu foofu mais déjà euh, fukki fa fukki fukki fan ak ñeent bu nit ñi téyee seen bopp wàññi li ñuy def rek bu bu médecin yi gisee ni mi ngi wàll wàllante bi mi ngi wàññeeku ñu xam ne feebar baa ngi dellu gannaaw mais bu ñu deful li ñu wax feebar bi dafay dafay yokk bu yokkoo dañu nar a obligé jël par la force def loo nit ñi li nga xam ni loolu la état bi demandé parce que état bi dafa am responsabilité euh, sàmm bakkanu doomu aadama yi bu ñu nee président la république mooy le chef des armées loolu la tekki cest à comme guerre moo am dafa am responsabilité dafa waat ni dafa day sàmm doomu aadama képp kuy yeewoo ci li ñuy wax Sénégal mhm. sàmm bi nag muy guerre boo xam ne dafa ay jàmbur ñoo ñoo bëgg ak ci suñu ay nit mhm. comme guerre bi nga xam ne mooy guerre coronavirus mhm. loolu mu waat daf koy obligé moom tam mu jël ay matu matuwaay pour sàmm réew mi euh, ci loolu mu war a def kilifa diine yi ak yenn régulateurs sociaux yi ban taxawaay lañ ci mën a am ba dimbale ko ci kilifa diine yi ñoom ñoo ci am rôle bu mag parce que comme li ma la wax comme fii dafay nit day seen xel ci dee lay jot dem jëm te sa xel bu nu demee ci dee jullit bu nekk sa xel ci yàlla lay dem te ki nga xam ne moom nga yaakaar ci yàlla mooy sa sëriñ bi nekk ak yow kon ñooñu ñoo ci am rôle ce même pas pour man li ñuy wax régulateurs sociaux c'est les régulateurs sociaux mën nañu relayer information bi parce que nga xam dañu am seen kàddu ñu koy dégg. Mhm. ñoom mën nañ xamale mais sëriñ bi moom moo puisque affaire ngëm-ngëm la kooku nga xam ne moom gëmul li nit ñi di wax naan science bi lii wala la li xam ne sëriñ bi rek bi rek moo ko ci mën a génn moo tax sëriñ ñoo ci am fondamentale te man gëm naa ñu sëriñ yi boo seetloo seen attitude fan yi ñoom tendre nañ perche bi état bi parce que euh, sëriñ tubaab bi moom joxe na deux cent million ku joxe deux cent millions booba gëm nga ni feebar bi am na li ma ngay dimbale mais dañu mujj wala tukki ni ñoom taal ñu ngi nguur gi la ñuy déglu kon nguur gi moo war a am fitu moom bu bu ak courage politique li ñu war a def mu dem ni nii la ñuy def buñ ko defee man leer na ma ni ñoom dañ leen fi top parce que buñ leen ci toppee bu ko defee taalibe yi ñoo tam mun mun mun mun mun leen di topp aussi parce que li difficile ci euh, këru diine yi mooy li ñuy wax ñun le triangle du pouvoir ki ko jëkk sant mooy ki nekk ci kaw moom kott moo fa nekk mm. mais au fur et à mesure ngay wàcc doom yi dañuy ñëw sëti dañuy ñëw pouvoir bi dafay mujj nekk diffus du du kenn ki nga xam ne moom lañ jiite rek moo am pouvoir bi yëpp mais day am ñeneen ñoo xam tamit ci biir dañ ci am ñoom tamit seen kàddu kon ki jiite day fexe sàmm lépp pour cohésion am ci biir groupe am loolu moo tax parfois muy yéex yenn décisions yi di yéex ci biir këru diine yi mais tey li li sëriñ bi wax euh, ni jàppale na état bi ci nangam léegi ñoom ñoom la ñuy déglu lu ñu leen di wax état bi bu boobaa moo war décoder loolu fexe ba bu amee lu mu war a jël mu yëgal leen ko ba pare te jël ko te bu boobaa ñoom dañ ko siy jàppale. professeur ñu wax ci ñi nga xam ne juñu nga ko sànq sax waaye euh, xëy na ñu gën cee taxaw mooy ñi nga xam ne malgré dégâts yi feebar bi def ci àdduna yépp gis nañu yi daanaka nërmeelu na euh, Chine tamit laaloon na leen bu baax ak yeneen i réew France ngi nii euh, am na ba tey ñoo xam ne gëmuñu ne yëf yi am na loolu yow noo ko jàngatee en tant que sociologue. donc biñ koy jàngee da ngay dellu ci culture ak si trajectoire réew mu nekk ak nit ku nekk. Euh, wax naa la sida bi noonu la fi defoon am ñoo xam ne ñu gëm ñu affaire bu dëgg gëmuñu ko parce que am na ñoo xam tànk que gisuñu maar day taari ay bakkan yu faatu bu boobaa duñ ko gëm mais ñaareel bi tamit ñoom gëm nañu seen ngëm-ngëm ak julli ñuy julli ak ñaan yooyu ñuy ñaan ak sëriñ bi di leen di ñaanal dana leen aar ci loolu loolu mooy indi problème fondamental bi tànk que gisaguñu koo xam ne ku ci rot la wala ku ci ku mu ku mu dal dañ naan ñoom dañ ci muslu parce que am na lu ñuy lu ñuy musloo lool nag ki ko mën a dindi mooy sëriñ bi ci boppam parce que sëriñ bi ci boppam xam na ni yàlla moo ñu santaane bu ñu feebaree ñu dem faju ci la preuve combien de marabout bu feebar nañ fii ñu yóbbu leen France ñu faju ci mbaa ñu yóbbu leen Angleterre ñu faju ci kon xam nañu yàlla xam-xam jotewul ak diine parce que yàlla moo ko moo ko wàcce def ko ci doomu aadama yi kon fépp fu nga xam ne war nga fa faju rek war nga mën taxaw nga dem faju faju fa mais li ñuy wax euh, ñi seen xam-xam màcc ci communication sociale euh, pas communication médiatique communication au niveau communautaire comme les travailleurs sociaux euh, comme li may wax man assistante sociale sama métier la tamit parce que jàng naa ci ba am ci doctorat mais donte liggéeyatuma ko mais ñu mel na man ñu mel na ñi lig ñi xam xam-xam boobu bari nañ fii ci Sénégal ñu ngi fi dañuy jàng bac plus trois ans après ñu jàng dem ci xam-xam bu leer ci sida bi ñoom liggéeyoon nañ ci liggéey bu wër ànd ko maintenant ak euh, ñi nga xam ne ñooy ñooy religieux yi ak d'autres relais parce que ñoom ñooy former yeneen relais yi pour wax leen naka la ñuy parce que société pour nga mën a wax ak nga xam leen te loolu jàng la donc kenn du ko jàng si ñaari fan ak ñetti fan dafa am ñoo xam ne ñoom ñoom la seen métier ñoom ñoo ko xam parce que Sénégal communauté yëpp fii yamuñu ku nekk ban porte d'entrée ngay dugg ci kan nga war jaar naka nga koy defee yooyu yëpp ay modd seen métier fii donc te euh, ñu ñu ñu ñu tey fi ñu toll daal jot dañu war a maase rek nekk benn parce que amatul politique amatul diine amatul waaso amatul dara parce que feebar bi moom toppatoowul loolu ndegam toppoo feebar bi toppatoowul réew soxlawul passeport fu ko neex lay dugg waxuma laa si biir réew kër gu ko neex lay dugg mm-hmm. kon li ñu ci mën génne mooy ñu wekku tey ci kenn rek mooy borom xam-xam yi mooy ñi nga xam ne mooy waa santé médecins yi ñoom ñoo ñu mën a wax li ñuy def te leen di déglu bu ko defee ñi nga xam nag ñoom ñoom dañuy am seen xam-xam mais seen métier du mën a wax am na ñoo xam ne ñoom ñooy mën a wax comme par exemple yen euh, au niveau des médias aussi rôle bu déterminant ngeen ci am mm-hmm. gis naa ne yéen a ngi ciy góorgóorlu bu baax donc bu ku nekk jouer so rôle rek xëy na première euh, frustration yi première réaction yi de contestation yooyu tamit tiitaange la tamit yen saa yi mm-hmm. parfois tiit gu ëpp googu mooy tax sax nga naan affaire bu du dëgg donc parce que psychologie être humain c'est très compli complexe mm-hmm. euh, dem say jàkk ji tamit Eh, yaakaar yaakaar bu rëy la rek li def boo fa demee xet ni dëgg mucc loolu la mm-hmm. mais bu ñu demee ba xam ne réalité bi eh, eh, moom musulul kenn mm-hmm. musulul sëriñ bi musulul président bi musul benn du waaw mën naa ko nga ne tey ma nga ne affaire bi jàpp ko mm-hmm. du vice présidentu assemblée nationale Burkina Faso nga ne moom yàlla yóbbu na ko donc ñoom tëdd nañ fa kon ñu xam ni lii lu am la ni lañ koy fàggandikoo ñu muñ ko rek xam nga muñ ñun la lëlul ñaar ay fan ba yàlla muccal la moo gën nga bañ loolu ba pare doo ko fekk kon loolu yëpp si ay naka la ñuy waxee nit ñi loolu la mais je pense que président de la république bi tey comme moom mooy li ñu wax chefu armée parce que bu ñu bu bu ñu bëggee faagaagal dëkk bi muy ci militaire muy ci lu mel ni moom dafa waat ni dafay sobe doom doomu adama yëpp loolu mooy liggéeyam moom rek lañ ko sant sant ñu ko keneen ñe keneen ku nekk nag yëlif nga sax ay mbooloo mais yëlifuloo Sénégal yëpp moom rek la yàlla def tey moo Sénégal yëpp moom li muy wax li du wax ko coobare boppam li ko spécialiste di wax ak expert yi nga xam ne euh, rek pour pour sauver parce que médecin bu nekk da nga waat. Mm-hmm. bala ñu bi ngay bi ngay bala ngay nekk médecin dafa am waat boo waat yow li nga sauver doo bakkanu doom aadama rek mooy sa moom nga moom nga waat ni da koy def kon ñooñu ñoo koy wax ni ko lii ak lii ngay def. moom tam mu jël responsabilité comme moo yëg filew bi yëpp mu wax ne lii la ñu def léegi nag sëriñ si li ñu bëgg bu ñu bëggee def seen véritable rôle mooy jàppale ko ci loolu. am na solo professeur Fatou Sow Sarr kon am nga yaakaar ne lii bu continuer daal euh, ñëpp def li ñu war a def sénégalais mën naa yegg ba ci respecter li ñu ko sant yépp euh, feebar bi aussi. man de yaakaar yaakaar bu rëy laa ci am dama comprendre réaction yu njëkk yi. comme je me dañuy jàngat jàngat ak ci feebar yu njëkk yi. Mhm. dafa tout est rentré par dans l'ordre par la fin finalement dañu mujj dem ba ñëpp mujj. waaw sauf que fii nag dafa laajul euh, temps bu bëri ndax feebar bi dafa gaaw tellement. voilà nag mooy. waaw loolu nga wax problème bi mooy feebar bi amul temps wu xam nga am na yeneen problème yoo xam ne chef de l'État dafa dem jël kër diine gu nekk mu wax ak yow. mais bii jot gi amu ko. feebar bi mayu ko temps feebar ko may jël décision rapide. Euh, nit ñi tam dañ ko war a wóolu muy muy muy population bi muy muy muy muy kër diine yi dañ ko war a wóolu te kër diine tey seen gandum responsabilité mooy jàppale ko ci loolu te buñ koy jàppalee dafa naa yàlla tiyaaba ba la leen ci bindal parce que liñ ciy jublu mooy fexe rek ba Sénégal benn benn kenn du du loru ci feebar bi yàllaa ngi ci dimbale nag ba léegi donte nag nombre baa ngi yokk te boo ottul semaine yi ñëw day gën a yokkuwaat encore mm-hmm. mais ba tey suñu médecins ñu war a leen euh, jaajëfal war leen seen xarañte parce que nelawuñu tëdduñu ñu ngi ci rek loolu nag nit ñi war nañ ko xam tamit mm-hmm. kon kon je pense que sëriñ si daal ñoom après président la république bu jëlee décision politique ki ci ëpp responsabilité tey mooy sëriñ si mm-hmm. ñoom ñoo war a jàppale askan bi war a jàppale pouvoir politique yi léegi nag mais nag bu ñu waxee loolu pare nag mm-hmm. ku nekk yaay responsable su bopp bu nekk xam boo dee jullit nga waroo fexe bay wàll beneen doomu jàmbur boo ko jàppale loolu nit boo fexe boo sàgganee yaa li ngay def bàkkaar la loolu la ñu war xamal nit ñi ko lor ñi la gën a jege. waaw parce que lor lor képp koo jëm lor ko si sayef rek yow loolu bàkkaar bu rëy la la si yàlla di bindal te te bañ bañ fagandu loolu mooy fexe bay lor ñeneen ñi. Mm-hmm. kon loolu la ñu war dëgg dëgg noo tax ñoom ñu wax te ñoom nag bu leen nit ñi waxee wax dëgg yàlla macha allah Sénégal déggal nañ seen kon ñoom wax dëgg yàlla rôle bu mag lañ ci am mais en même temps ñoom ñu war leen sargal parce que ñoom ñu ngi ciy def seen loxo ci xaalis ak ci jàppale ak ci tere mm-hmm. mais en même temps politique yi ñoo leen war a comprendre je crois que ñi féete ci kaw daal ñoom tàllal nañ loxo politique bi léegi président moo war jël ay responsabilités am. Fatou Sow ñu ngi lay gërëm professeur ah. euh, ñu fàttali ni socio anthropologue nga yaa jiite itam institut du genre et de la famille. merci beaucoup jërëjëf. ñu ngi lay gërëm.